tëralisi may déclaration asalaamualeykum mbokki Sénégal réew mi gis ngeen xew-xew yi fi am mu di libération wu suñu mbokk mi président Ousmane Sonko ak suñu frère bi ba siiru Bassirou Diomaye fay muy lu ñuy sant yàlla nag ndaxte lu ñu yàgg ñaan la lu ñu yàgg bëgg la li ma bëgg a waxtaane tey mooy wàllu démocratie mooy wàllu liberté mooy wàllu état de droit li tax ma koy waxtaane mooy lii taxoon ak lii ñëw ci réew mi ba ñu jàppoon ñooñu tëj leen ci kaso yi te defuñu dara projet bii nga xam ne moom la ñu yëkkati porté ko muy le projet patriotique souverainiste refondateur et panafricain bu ñu ko waxee xanaa dégg nga ci refondateur boobu refondation bi nag mooy équilibre et séparation des pouvoirs te loolu du lu ñuy fori feneen du lu ñuy jéggaani dañu ko liggéeyoon fii ci réew mi ci assise nationale ñu def ci liggéey bu mucc ayib policiers yi bi ñu ñëwee 2012 ñëw signé ko waaye trahir esprit bi et lettre assise nationale yi sànni ko ndax arrangé wu leen commission de réforme des institutions itam defoon ci liggéey bu mucc ayib moom itam ñu trahir esprit bi loolu nag la ñu dem jëli ni liggéey yu mucce noonu ayib yu baaxe noonu ak lu amee noonu yéene ci réew mi ëpp nañu koy sànni président de la république c'est un hyper président ay cëram ak ay pouvoir am dafa ëpp dinañ ko wàññi taaye ko ba dina am dogal naam waaye du mel ni buur ci biir réew mi dinañu defar ba nga xam ni justice dina am indépendance maanaam dinañu indi cour constitutionnelle boo xam ne mooy remplacer conseil constitutionnel président de la république lii mu nekkoon ci conseil supérieur de la magistrature ñu seppi ko ci ndax kat mbokk yi sénégalais sonn nañu ci justice bii nga xam ni kumba am ndey ak kumba amul ndey dinañu fexe ba nga xam ni lii di prison yi mooy les lieux de privation de liberté yooyu itam boo déggee xale yi génn ci kaso yi bu ñu leen nettalee sa yaram day daw ci ñaawteef yi fa am ak yu ñaaw yi ñu leen yore loolu yi ko defar ba prison dootul nekk fu ñuy toro toroxale doomu aadama dinañ la dimbali ba boo génnee nga mën a jëm kanam programme Diomaye président mooy bi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane Dièye moom itam Ousmane Sonko moom ko ak képp ku mën a ànd ak ñun ci loolu dafay lu am solo loo xam ne bu ñu ko dugalee ci réew mi doxal ko fi dina changer définitivement réew mi nga xam ne moom mooy Sénégal parce que bu institution yi dëgëree taxaw ci la économie di mën a taxaw ci la réew mi di am dal ci lay am stabilité te mu jox Euh, euh, confiance investisseurs yi ñu ñëw ci réew mi te loolu mooy mën a tax nga xeex ger ba xeet ger jóge ci réew mi lépp luy ñaawteef ak lu yàqu jóge ci réew mi démocratie lalu fi njiit yi ñuy tànn muy njiit yu yërëm askan wi liggéey bi ñuy def sacerdoce lay doon mission waaye du doon liggéey boo xam ne bii seen yi fi bopp lay doon